sant rek la ndax daaw ci waxtu bi bi ñu dajee ba bés bi ñëwaat ren rafet na ñu sànni ci suñuy kàddu ci gërëm ak sant kan la ñu jiital ci ngërmande li muy yow toujours damay faral di ko wax nit nga ku xam li ñu la dénk ku xam règlement intérieur bu assemblée ak statut bi foofu laay commencé jëm ci li nga xam ne moo ñu fi indi ba pare tamit ku mën a muñ ku mën a muñal njaboot ba ñu yegg si fii ba yàlla def at bi di jeexaat ci jàmm kon jaadu na lu ñu sonn sonn ñu jël parole sant sant yi tamit boroom réew mi nga xam ne lépp luñ fi lim moom xalaatam ci kanam rek la jëm te ku mën a tànn la di ku baax di sant yi tamit ci ki nga xam ne mooy suñu ministre ministre sénégalais yépp la waaye bu région bu Kaolack ñoo cëpp doole ndax foofu laay waajee foofu laay ñëwee bii rek Mariama nekk ministre ba léegi lépp luñ ko jox dina ci def fullaam dina ci def faydaam te képp ku fi nekk yi tamit xam nga ministère biñ ko dénk réew mi yëpp ko soxla réew mi yëpp ko bokk waaye yaakaar naa ne kenn ku nekk gis nga ci sa bopp defe naa ko kenn ku ne ñu ci bëree bëree bëri gis nañ ci seen bopp kon mel na ni suñu at mi jeex na ci jàmm ñu ñaanaat yàlla at bi ñëwaat yan nañ ko jeexalaat ci jàmm yàlla may ko député yi fi daje yépp may ko mboole mboole mi ànd chef service yi ànd ak ministre bi ndax ñun mënuñoo bañ a sant sant rek la ñuy def loolu la taxoon ma jël parole waaye ku nekk xam na ne liggéey bi rafet na liggéeyu député yi rafet nañ ñu ngi lay gërëm di la sant di gërëm borom réew mi bu baax a baax tey ñaan yàlla ñu yàgg fi yàlla defal ñu jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullah